waxleen yeen آه، الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والجاه إلهي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ حضوري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر يا همة الشيخ عندي فاحضري أبدا ألف لدى الكل ممنوعا من الزلل والزيغ واللهو والشهوات والخطر بين الخلائق مني بعد بالأمل وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلتني yéen سيفر suivre دانا فيضو نيو لين دي نيو دي نيو di ñëwaat ak yéen mu nekk ngëneelu boole bisimilah rahmaani rahim ak alhamdulilah rabil alamin moo xam ci julli moo xam lu dul ci julli bu dee ci julli julli lépp lu muy def dafa war a ay adilla dinañ indi adilla yi tegtale euh, daga nag loolu euh, dañoo gis ci téere bu ñuy wax futuxaatul makkiya nga xamante ni al aarif billahi ibnu arabi al xaatimi moo ko solo ibnu arabi al nekk boroom xam-xam bu mag nekk suufi bu mag aarif billah koo xam ne maqaamam kawe na ba muy woote xatmiyatu te ñëpp xam nañ ne maqaama alxatmiyatu wal katmiya mooy maqaama yi gën a kawe ci wilaayatu moom demoon na ci yàlla ba egg ci xencu maqaama yooyu noonu ba koy wooteel ci boppam demoon na bay wax ne bina xatama allahu alwilayatu fantahat إلي فلا ولا إلينا فلا ختم يكون لها بعدي ci ñun la yàlla matalee màggaayu wilaayatu amul beneen xatmiyatu buy feeñ ginnaaw ñun waaye ginnaaw loolu dem na ba xam ne du moom ba mu junju ki ko war a moom ban dëkk lay feeñ ak nan la génnee nan la tudd ak ainsi de suite muy mawlaaya saaxibul xatmi wal katmi ci ahmad tijaani radiyallahu anhu ngeneelu boole bismillahi rahmaani rahim ak alhamdulillahi rabbil alamin ñëw na ci futuhaat al makkiya ñëw na ci faydul qadir nga xamne al manabi moko solo ak ñeneen waye ñaari borom xam-xam yi ñoo gëna fess ci seen xam-xam ñom ñoo gëna mandu tamit ci borom xam-xam yi futuhaat al makkiya hadith bi nim fa ñewé moy dafa ne qala anas ibn malik radiyallahu anhu billahi alazim qaala lii علي بن أبي طالب وقال بالله العظيم قال لي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال بالله العظيم قال لي جبريل عليه السلام وقال قال لي إسرافيل عليه السلام وقال قال الله تعالى يا إسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بالفاتحة مرة واحدة أشهد عليه أني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه بالنار وأجره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة والفزع الأكبر ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين برم فتوحات المكية أكفيض القدير مني أنس ابن مالك أنس نك نيكو خمون صحابي لبمك من غنى صح دومي ينتبه صلى الله عليه وسلم نحبو مينو تي ينتبه فكي أتلام kon yonent bi moo ko yar yonent bi moo ko moo ko jàngal waajuram jigéen bi ñuy wax ummu sulaymin moo ko jël indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bi jox naa xale bi hadiya pour mu lay liggéeyal bi fop xale bi ne allahumma barik fi maaliha wa waladiha yow yàlla maa ngi lay ñaan nga barkeel alalu ndaw si waaye tamit nga barkeel doomam ji anas doon ku barkeel ci xam-xam doon ku barkeel ci kóolute bi ma amoon ci yenentu bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci siqaat yi ñi nga xam ne ñoom la ñu gën a wóolu seeni xadis anas ne maa ngi giñ ci yàlla ne seydina ali karamallahu wax na ma ne moom tamit mu giñ ci yàlla ne aboubacar siddiq wax na ko aboubacar waat ci yàlla ne yenentu bi wax na ko yenentu bi sallallahu alayhi waat ci yàlla ne jibril alayhi salaam wax na ko jibril waat ci yàlla ne asrafil nee na ko mu ne yàlla dafa wax ni yow asrafil maa ngi giñ ci sama màggaay maa ngi giñ ci sama doole maa ngi giñ ci sama nguur maa ngi giñ tamit ci sama tabe ak sama tedda nga képp ku jàng bismillahi rahmaani rahim takkale kaak fatiha takkale kaak alhamdulilahi rabbil alamin maanaam borom wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin bañ a taxaw ci rahim alhamdulilah waaye rahim alhamdulilah yàlla waat na ci màggaayam waat na ci tabeem ne képp ku def li benn yoon mu ne yow yow Asrafil nanga nga seede ne naa ko mbooleem bàkkaaram nanga nga tamit nangul naa ko mbooleem jëfam ju baax na nga seede tamit mbooleemi rëcc rëccam yépp bal naa ko ko te duma lakk làmmiñam ci safara duma ko mbugal ci bàmmeel duma ko mbugal ci safara duma ko mbugal ci yowmal qiyaam waaye tamit sax naa ko musal ci jàkkare bi bi nga xamante ne moom mooy am suba yowmal xiyaam yàlla wax ne yawma yaj'alul wildaanu shiiba bis bi nga xamante ni xale yu ndaw yi sax dañuy tiit ba bee jaaw yàlla yàlla musal ci jàkkare googu mu ne képp ku def fatiha ci anam gu mel nii benn yoon mu ne dinaa ko musal ci jàkkare googu noonu yàlla teg ci ne wa yalqaani qabla al anbiya wal awliyaay ajmain mu ne dana dajeeg man lu jiitu yenent yi ak waliyu yi maanaam balaa may teral ñooñu dinaa ko teral jàng bismillahi rahmaani rahim ci kaw nag maanaam biral ko ak yelu ko jàng ko ci suuf yépp ci sunna la bu ci kenn def benn ba nga ne ko li nga def amoo droit def ko déedéet bu ci nekk ñëw na ci ay xadis yu wér ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam jëfee na loolu dafa fekk ne mbir mi njëkkantey ngëneel la moo tax mutasawifuuna yi ñu bari ci ñoom dañuy biral bismillahi rahmaani rahim ñenn ci ñoom tamit dañ koy takkale mooy comme li ko xadis bi waxee yàlla moo leen jagleel ñu gisee noonu boo demee ci musnad ahmed ahmed ibn hanbal wax na ne an anas radiallahu anhu qaal sallaytu xalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakrin wa umara wa uthmana fa kaanu laa yajharuna bi bismillahi arrahmani irrahim moom anas mii mi indi xadis bi wax na mu ne julli naa ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Aboubacar ak Omar ak Ousmane waaye daawuñu biral bismillahi rahmaani rahim loolu ci benn xadis la boo demee ci beneen xadis boo xamante ni tamit xaakim moo ko solo ci moo ko indi ci mustadrakam mu ni jële na ci anas ba tey anas ibnu malik bi anas radiallahu anhu qaala ne samiatu rasulallahi sallallahu alayhi wa yajharu bi bismillahi arrahmani irrahim anas ne دقنا يا النبي صلى الله عليه وسلم دي جولي مبرل بسم الله الرحمن الرحيم ما نامو جانغ كو تي يا النبي صلى الله عليه وسلم دان نكو جانغ تي كاو دان نكو جانغ تي سوف بو ديمي تي بلوغ المرام من ادله الاحكام امنا حديث بو نيو فوفو مو وخني قال صليت وراء ابي هريره رضي الله عنه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ ولا الضالين قال امين فقال الناس امين ثم يقول حين سلم أما والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من نعيم وحنا نجلنا جناو أبي هريرة رضي الله عنه مجانج فاتحة بر بسم الله الرحمن الرحيم معنا مجانج بسم الله الرحمن الرحيم تكو ونبوم إيجيتي ولا الضالين تميت موح آمين بتكو نتوب تي مم تميت وح آمين ونبوم سلم لي مجين مم أبو هريرة من ماجي جين تي كيار سما بكن man maa leen gën a nduroo julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sama julli moo gën a nduroo julli ki yenent bi sallallahu alayhi wasallam julli te moom ba muy julli dafa biraloon bisimillahi rahmaani rahim kon biral bi ak ñàkk biral bi yépp sunna la waaye lii ngëneel boo xamante ni mu ngi e, bàyyee ko ci yàlla subhaanahu wa moom moo xam lan moo tax loolu neex ko waaye wax na ne rek bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin neex na ko neex goo xam ni képp ku ko jàng dana la jéggal sa mbooleem bàkkaat dana la nangul sa mi yiw te dana la musal ci bugalu bàmmeel bugalu safara bugalu yowmal xiyaam te dana la musal sax ci jàkkare gi nga xamante ni moom la nit ñi di jàkk suba yowmal xiyaam waaye doyut yàlla nee na yow lay njëkk teral kay yenent yi ak wali yu yàlla yi kon loolu jar na xam jar na topp moo tax cheikhu tijaani radiallahu anhu mom ni la dan julle te ni la diggalee tamit ay talibem ñuy julle façon bi ni yàlla nañu yàlla may lépp lu mu làmb ci hadith bi ni lépp lu mu dehal ci hadith bi ni ci ay mbax yàlla nañu ko yàlla may ci baraka fatihatul kitab ci baraka bismillahir rahmanir rahim in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa